daal di daal di defaale si cosmétique man kontaan naa ci loolu si mbiram jigéen rek laa lay naan rek loolu laa gis parce que tey nga nekk xale toog nii di liggéey sa liggéey moo gën nga nekk xale dem di defe ji leneen yaa ngi toog di létt say mèches yu baax di létt keneen ki tamit mu ngi toog fële xool jox ma renversé yooyu yu rafet sax la teg nii yu rafet ngeen di defar xale yu baax a baax te xale aussi day def yëfu xale damay damay damay bëgg di wax loolu xale day def yëfu xale bu bu sant la loo xam ne sax du léttu xale normalement da ko war a wax ne defal ko yëfu xale indi sa modèle ñu xool modèle bi modèle bi baaxul si yow duñu la ko leet waaw loolu moom kontaan naa si nit daal jàmbaar sa waar wa nit day góorgóorlu waaw kon maa fi jaaroon EDV na yàlla barkeel yàlla na salon bi dem ba yokkoo yokk ba ñoom ñëpp ñu yëg ko kontaan naa jërë ngeen jëf maaleykum salaam ku baax aw ñanga mbaay laa tudd waaw dama ñëwoon tey seesi la nag événement tabaski bi tama ma lay romb ngay nokkos korité korité ma lay romb ngay nokkos xam nga yàkkamti rek ak bëgg laa gis ma gis ñoom soble daxaar ñoom ñëpp nga boole sa dara lewetul moo tax nag ma dawal EDB TV ba fii mhm. ne ko bàyyil ma ñëw wax ak moom dana ma neex dañuy ay géwal te deret jee ñu sonal macha allah buñ jëmee ci mbirum ceebu jën dem ci supp kanja bo wiré bagage yaangi ni geejju beur bëri yeeg mbere mbese yi ak yéet mako yor xana du kon may tokal ci ci ni neex neex wa léegi nag ñu jub ci korité ma gis ni fimné ni xalé yi tabarkallah adina légui day avancer légui olé ñuy nekk di debba di sonna dédé awa ñanga marché bourguewal moy tokal ci ci ni neex neex waaw kay wi soble tabarkal bu la nexé nga jël bi andi sa oignon kase ma walal lako bala sa poivron kase ya xam noo koy mais man buur bo ma topé fa ñu jëm ah sha allah tabarkàlla bu la nexé tam bo jëndé sey ba paré nga jënd ci marine géwél bi may toqal ci xol yi neex neex kat say marine gis nga jinger yaangi sama wet oignon yangi poivron yi waaw gis nga uh, ki yaangi ngi ne kaani yeeg di wal ba sha allah bam bax bëgguñu man maa ngi marché waka marché waka ma ngi awa ñang géwal foofa toj buur géwal a ngi déedéet li ma man ci géew yi lu ko raw laa man ci mariné bi li may marine pu la maa la wax ni tax ma jógee bële EDB TV ñëw ba fii nuyu si la tànn ma ko dul awa ñang kon xam naa ne su ma ñëwee nga wax ma fay rax ci dolli nag waaw dama def dagg soble ci wet gi waaw li lay wax ne la xale rek eh, seen chance la lii lañ tombeel tendance la di leen daggaalee soble lu ci nekk nag léegi yéen seen prix lan la ak boo leen ko jëndee nan ngeen koy daggee ak lan ngeen ciy daax ah soble bi essay nii seer na lool soble bi saak soble essay nii muy si 8500 soble pomme de terre bi muy si 8000 8500 waaw pomme de terre bi mooy 8000 soble 8500 waaw léegi yéen da ngeen koy xëy boo leen xëyee ñëw jënd seen ay saaku jaay wala nan ngeen koy defee non ça dépend ma man moom damay commandé 15 sacs ou bien 20 ou bien 30 cas ou bien 40 rek. ak pomme de terre bi aussi. léegi bu ko defee ngeen teg ku ñëw ngeen dagal ko. waaw. mais daal doo leen si am benn jafe-jafe. ah yeneen say jafe bi day dugg si biir. dëgg la liggéeyu jigéen la dafa ànd ak muñ parce que képp koo gis fii mu taxaw daan doole moo ko cax a jóg liggéeyu jigéen nag dafa metti mais sant yàlla rek sant yàlla kontaan nañ si yéen torop. dëgg dëgg nuyu koy nuyu. Eh, nuyu naa waa marché bi ak waa Sénégal lépp. <laughs> waa sama moro yi. dëgg la dëgg la kontaan nañ di leen wax rek ñu dem Dóor waar. waaw di leen xamal ne sa morom mi nañ dem Dóor parce que dara jeexul. te bi bu ko amul bu bu bu këriñ amul bu diwlin amul bu dara xaalis xaalis la te day faj soxla loolu loo si ah mamanya maa ñaan sama moro yi na génn liggéey. parce que loolu mooy importance bi. waaw dëgg la kontaan naa si yow. merci beaucoup ODB e TV moo fi la kontaan naa yow malakum ku bax no def mbokki odb TV ño fi ñewon di la set parce que ku ne xam ne ne kontaan nañ ci niñ leen gisee ni parce que ku ne ñakate da lay dundé te fekk goor muy liggéey liggéey bu baax dag yow danga fee yag na dama la xam wa loolu mo taxone ma ñew seet si la tay way ma ngi nuyu ñep di jaare ñep du leen nuyu wa E. odb e TV. waaw tv wa sen télé amna solo trop vraiment li ngeen def ni amna solo quoi mais ma leen nuyu di leen jaare bu baax di nuyu aussi ñi sétane di ñep di balu ak ñep di balu ak ñep waaw di nuyu ñëpp ah di nuyu aussi ñëpp quoi ma la nuyu. dëgg la kontaan nañ kontaan nañ si fay nuyoo bi man damay kontaan si fekk si góor yàlla mu toog di liggéey te mënoon na def leneen te bat boobu duma ko bàyyi ndax bu la neexoon nga def leneen waaye yaa ngi toog di ñàkk tedd di xaar loo yóbbu kër ga te yàlla da koy andi ngay jël nag jigéen ñi di leen toppatoo waa kon soxna si noo koy def. waaw soxna si moom moom xam nga moom foo ma fekk rek mu ngi sama ginnaaw moo nekk moo nekk na li sama ginnaaw moom dama koy toppatoo nice ba pare fa ñëw jàpp si liggéey bi aussi du nuyu di gërëm waa di len gën doli sant di len ñaanal aussi jamm ak salam kep ki yow Wakam ma ngi lay ziar di leen ñaanal jamm ak salam bon di ñaanal ñëpp bon di wax ne jigen amul dara lu defar bopam jigen so xolé lan moo tax jigéen am importance si defar bopam manam moy kula gis day xam da nga fonk sa bop fonk sa bop rek moy kuy defar sa bop comme ni comme ni nga yagne ni sha allah loolu dafa bax si jigéen moo tax foo toll rek man soxna damay am envie pour defar len lu rafet waaw moy crayon beeg xef beeg tatouage beeg pose ongul yeeg lepp parce jigen su taro rek ñu suñu xol set yow yow ku la gis sa xamé da nga bax ndax man dama contane ndax fima dugg yëpp kenn sama àllaajee ngi ni kon yow bokko ci fima dem yépp ñu ngi tok mais kenn si neewu sama àllaajee ngi mais yow bo mëne soxna sa ngi ni té yow nga tek si na jigen dañ koy defar té ñun dañu wara a defar bu ñu defaru ñu yàqu te bu ñu yàqu société bi yaqku man contane na si yow mbaa nag liggéeyu jigen dafa xawa metti mbaa doo si am ay jafé jafé waaw ségal nak dina am ay jafé jafé nak jigen mom liggéey dafa metti mais su la yàlla mayee ba nga dem ba tàmmul liggéey ak jigéen da ngay sóoraal lu bëri xam nga jigéen moom mën naa la xam ne la xelam magul bu baax mais ñun ñuy góor ñun ñooy màggal suñu xel ba nga xam ne heure bu ñëwee rek ak ñu ñu ñëwee rek mun lañ liggéey ak ñoom sans problème defal leen liñ bëgg parce que benn temps bu ñuy def yàggut da ngay gis ku jógee këram ñëw tàmm ne yow laa bëgg nga defaral ma kooku da ko war a ak yi tette ko defal ko li mu bëgg li seddu xolam parce que dans le conseil benn affaire jigéen su xolam seddee rek suñu xol sedd parce que jigéen ñoom ñoo ñu yor ñoo ñu ëmb ñoo ñu yor dëgg jigéen ñoom ñoo ñu couvrir gis nga jigéen fu mu nekkul rek dara du fa baax. yow nag soo amul woon jabar maa lay may jabar mais ndokk nag bi nga yoree a si macha allah macha allah parce que ay kàddu la ñuy jox gëmee nit parce que ba ma dalee wax ak yow ba tey loo ma wax ne ma jigéen te jigéen. te moom moom moom macha allah moom bu la defaree moom nga kontaan gis nga man mi aawa buuru këram laa saa ma jambee laa la sama jëkkër day kontaan ba bëgg moo tax gis nga moom rek moo may jamb barki yonenté wi mu jambalé ba paré nga teg si nekk dalinkoor muy wayo Aïda Samb bi lo ci wax ay man kuy xex dama la yeureum yeureum na kuy xex dé ndaté way bi fimu mu dafa faj lu bari ma bëgg nak sama mbokk jigéen yi ma leen di jox message ngeen gorlu nit du wujjeex njëkkeem yow ya sey ya wara liggéey waye dem kër jàmbu ndaxte koku day sey ëlëk nit du wujjeex njëkkeem nit du wujjeex gorom ñun dañoo sonu yaay yi ëmb juroom ñenti wër wasin ñëw indi sa doom sa jabaru doom mu wëlbati ko fekk fa sa doom deug la doom ji dafa wara liggéey waye ya mom sa kër Ya mom sa keur man dama len di sante di len geureum di len wax ne contane na na maquillage jool de sha allah ñun ñoo la gëna contane barki Baye Niass ñoo la gëna contane waye suñu sunu bi mom du ma sa daanu te kenn du ko daanel barki yonent kon da ngay wax rek wakaam sen dooma ngok nga yegg fi rek ci marché bi adresse bi adresse bi wa adresse bi so ñëwee ba ci marché wakaam fo ne xaadim tatouage lay laajte da ngay won xaadim wala so ñëwee ba ci Baye nongo mi mi moccu Baye nongo marché wakaam ah soo ne ana place xaadim rek ñu ne mu ngi leen ci kaw adresse bi nak bon 117 484 54 92 484 54 92 117 def mais fi lepp fi am gis nga fi nekul ne pose xef bi kessé ak pose onglet kessé ak crayon yi amna yeneen liggéey yo ne ay liggéey xel la waaw yo ne mang ci tété ñi bu baax xamone nak yu bëri mom nit mënu ko xam mais un jour yalla dina woné lepp inshallah waaw TV yow ak dañ lay def client parce que yow dañ lay tek ci table bi nga dimbali yeneen goor yi nga xam ne dañuy nelaw ak nan ataaya bañu ma nan ataaya de parce que dama ko bëgg waaye nak mu nekk ak ay façon xey ba wacc door a naan man contane na ci yow yow xam nga ne sumay def émission duma la bàyyi yow xam nga ne duma la bàyyi du ma ko nangu soko bari won do tok ci si allah ji am loolu mom dëgg la ma ngi leen di nuyu yeen wa télé bi di nuyu sama client yi tok fi yëpp di leen jaajeufal di contane lool ci ñew bi ngeen fi ñew kontaan nañu waaw alaaji li mu wax nii loo si xam yokk góorgóorlu rek man dama dama kontaan bi mu ne ma yow la teg si ginnaaw boole si naan jigéen day defaru est xam nga ne am na ñoo xam ne dañuy euh, tubaarikàlla seen jabar dañ koy trépassé waaw ah, loolu de dëgg la moom waaw ah, jigéen moom dañ kaa war a bàyyi muy defar ba mu baax ndax moom kanamam rek la am ak luy bégal jëkkëram waaw kontaan naa si kontaan naa si yéen may dàll yi tamit rafet na trop dàll yi merci beaucoup madame parce que

loolu daal bëgg nañ koy xam dekk tamit aussi doomu wakaam di wax ne wakaam nag dëkk bu baax la ndax ñi nga xam ne ñoo samp lii tey bañ mën a ñëw si marché bi di xool seen i jafe-jafe yëfi wakaam la kon daal da wakaam daa wakaam rek lay doon. dëgg dëgg la merci beaucoup loolu kontaan nañ ci aussi en même temps di leen ci remercier vraiment di wax ni mënuñu leen a jaajëfal daal parce que lu mel nii su amee waa wakaam ci gis seen bopp loolu dafay nekk loo xam ne si lu rafet la quoi donc loolu ñu ngi leen ci ngërëm ngërëm goo xam ne si am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem di wax ni marché bi moom macha allah ñoo ngi fi nekk di débrouiller di lu kenn ku nekk li nga nekk yaa ngi jéem vraiment di jéem di xool nan ngay def pour mbir yi gën a dem si kanam donc ci loolu la ñu nekk quoi fii mooy bijouterie Darmanko kër Sëñ Fallou waa Darmanko bijouterie coordonnerie Darmanko fii la kër Sëñ Fallou donc boo ñëwee ba marché Wakaam fii nii ci crédit mutuel bi xay na moom la nit ñi gën a xam boo ñëwee ci arrêt numéro 3 bi rek première mbedd sa droite rek soo duggee rek boo laajte bijouterie Darmanko rek dañ lay indi fii. ba xam nga ndax yow ku jar a génne nga ndax ñun xam nga ne luñu lu ñu am jaaroo ñu ko gënal kon boo ñëwee jee li ma lay jaajëfale mooy boo ñëwee yombal ñu ko li ñu defal mbiram yombala daanaka danga ñu ko may ndax boo leen ñëwee dem leen uti ji boo leen amee ñëw takk man dama lay sant benn jafe-jafe effectivement effectivement waaw loolu dañ ci yëngu parce que jamono naqari na naqari goo xam ne si pour nga ñëw vraiment gis ben bijou bëgg ko jënd jënd ko légui légui vraiment légui yombatul quoi mais nak jigéen ñi am nañ ay pexe parce que légui dañuy yëkkati ay natt comme comme ni nga xamé dañuy jël 10 wala 15 wala 20 personnes def natt peut-être ñu def chaque jour 1000 euh, francs ou bien chaque fin du mois 5000 ou bien chaque fin du mois 10000 ñom ño xam nan lañuy ñuy organiser woo quoi wala ñaar donc non lañuy def ba di ci génn xayna lool nak am na la wa gis na rek ngay door waar gis lam yek jaaro yeeg fuddante seeg père yi ana bin bi nii waaye lii tam dafa bokk ci Korité gi waaw nuyu aj say tànk deexal sa ndigg asalaamaaleykum ma leen di béggee fu ma toll waaye nag Baye Fallab Sëriñ Falloo ngi nii rek di door waar di góorgóorlu di ñaan yàlla tey lu nu man ren yàlla nan man déwén lu ko raw ci barke Allaaji Fallu ci barke Seydina Muhammad yàlla nan yàlla defal jàmm noonu ñëpp ñu fekke ko tal ko man ko ci barke Maulana jaajëf waay waaw man dama kontaan si moom nag dama kontaan si moom Baye Fall takk ndigg ku ne xamne Baye Fall day door waat waye man lima jaaxal nak korité bin bin sa dank andale ko ci ñak kon buñ ñu fuddanoo lu ñu def. day yokku dépasse. waaw bu ñu fuddanoo def. fuddan bi ni bo boo fuddanoo rek def sa defal mu ñuul kuku rek. nga defal ba mu baax lettu rek. togg ba mu neex bi ga sa alaaji xana neex alaaji rek ko ñor alaaji ko ñor waye yow dafa am luma la bëgg laaj parce que xamna ne suma ma la ko laajee danga may tontu waa koor lan nga ci xam ci ay Samb li mu wax ci jégg bi xex ak jégg bi xexul kan nga ci ñëmé gërëm kan mooy Dalinkoor a ah, jeeg bu baax rek jeeg bu baax li naan la waaye dafa di ko dégg ab jeeg du siis jeeg du soxor barke Serigne Fallou waaw ñu yóbbu woon si suukaru koor sax ñu ñu leen di dalinkoor déedéet déggoo ma de xam nga dalinkoor moom kenn la dalinkoor am na koor yoo xam ne nii dañuy def lu baax di wax lu baax di dox tànk yu baax bëgg sa jëkkër bëgg sa mbokke jëkkër kooku mooy dalinkoor ah waaye nag am na ñoo xam ne dañuy ñëw tas sa kër ah waaye yal nañu yàlla musal ci lool amin allahuma amin mais fii mu nekk nag ku ko def da ngay tiit ah, ndax xam nga am dafa nekk benn buntu te ñu am suñu animateur bi nga xam ne bu ma xamoon fu mu ne ma fekk fa muy boobo ndax solo ji ba ñëw maquillage ba sonn ñuy dalin ko te kenn du jug affaire bu garaaw jaaxal na ma lool yow da nekk si xew yi di lijjanti bés yi di defar bës yi léeg sanga gërëm koo xam ne deful dara ndax loolu yëpp mbégte la si mbégte la bokk waaye nag ba Aïda Samb génnee lii ba tey soxna am nañu ne la watu yaboo sensé nde man soxna mi sax suñu mu ne buma naa def lu baax sax ne ma ngoy def. dama tiit dama tiit dama tiit dama ragal. ndax xam nga ne tay ji nga solo ji ba ñëw ñëpp dellu soxna yow gunge woo yaay koku xalé nañu gor góorgóorlu lu toll ni korite gi xalé nañu défar ginaar yi xalé nañu bëggal allah ji xalé nañu défar kër yi ndax ñoom mom kër yi ku ñu takk am nañ ci yow yaakar mustafa man suma soñu da ngay am ku lay ginaar ma ngi fay tudda booba sax waye ki sax animateur la sabar rek yalla jëmal kanam sun télé bi yalla doon ay télé télé ci barké sayidina muhammad limam allah ji wax rek ndax wakam ben bop la kenn mënu ko xar ñaar ñun ño bokk nday ño bokk bay bon ci gaw ci kanam rek jërëjëf Aïda. merci beaucoup contane nañ tasee mom damay taxaw ndax teug rek lay def wax deug yalla wa jaraf yaangi nonu noonu toog kon. waaw ah, man maay doomu ndey wax deug yalla bobu sama xarit la sama dom nday la wa wakam mom ñu ñëp ben leen wa di wax ne wakam yalla na fa yalla def jamaay waaw yal na nu yàlla nangu suñu koor dafa ko mboolem jullit si barke Seydina Mohamed ñun animateur ñu ñëpp benn le ñu ñëpp xam taw tawféex yàlla dimbalee noonu loolu waaw di bégg na sama mag ji Mor di la béggee di kontaan ci yow waaw booba moom ku ko dégg ku ne xam ne man maay doomu ndeyam waaw loolu rafet na kontaan naa man ba ma waxee boobu dama si sawar ndaxte sama doom ndey la sama xarit la voilà di wax Tafa di la béggee saa su ne kontaan ci yow si jërëjëf wakaam ñoo pour daray wakaam bañ a réer ndax wakaam ndawul waaw wakaam a ko fi indi te yow da bokk si artistes yi nga xam ne sax dañ lay soxla da bokk si artistes yi nga xam ne parce damay gis li ngay géew gumbe boo ko tëggee fa la daaxee ndaw rabine boo ko tëggee fa la daaxee kon yow doomi wakaam nga kon nag suñu ñëwee tey di laaj ba yem si yow duma la mën a ñàkk a jox micro bi di la wax ne EDB TV yaa ngi xool nii kooku sa télé bu bees ko jot la wax ne télé boobu yàlla na mag ba boba sax buñ ci mané bokk ñun ñu bokk si parce que ñun wakaam ñun ñëpp benn lañu tay ji ko ci bokku nday wax baye tamit seen mam yi yeena a bokk waaw di la wax ne dal yalla yalla motali dal wax ji jaw muy sori ji a kep koy jaay ci di leen béggee sa su di béggee sama waji tafa ko kay cameraman kep ko sentu ci cameraman tafa moy moy sa moy sa ki waaw di la wax ne dal waaw di béggee wa marché yema di la may dédicace ha ah waaw ci kanam kanam ma mel ne naa ah, waaw dalinkoo di may ci kanam sama cameraman yóbbu ma foofu ma ñëwaat. salaamaaleykum waa bitig bi maa ngi leen di nuyu di kontaan si yéen rek di gis ne Dóor waar moo leen tax kon sëñ bi ma laaj tur wi naka la. Fallou Dieng. Fallou nga tudd. oui. waa Fallou naka yëngu yi nag dama gis ne sax man damay xaw a la xaw jël sa temps tuuti de Fallou Galas Baye ben dama xam ne jël sa temps parce que dama gis euh, bi neex na ma parce que dama fi dama fi yàgg di duggee ma fi fekk ñu am maanaam macha allah ma fi fekk ñu Pastef waaw waaw loolu la dañuy xaw a jàpp gis nga kii Dieng et kontaan naa si yéen ndax ñax a tedd rek ngeen di dundee ndaxte tey jii yéen bokku si nga xam ne ñooy dogale maire yi bu ñu dem Kastoor waa Samba Samba kontaan naa ñoo la a kontaan foofu ñoo la gën a kontaan foofu billaay wala ñoo la gën a kontaan bu bëggoon ngeen jaar si ginnaaw bi bi loolu moo tax ñu ñëw fii waaw loolu kontaan trop trop moom kontaan nañ de kii la ci limon ginaar yi ah waaw moom la ñuy raxase ginaar waaw moom la ñuy def si ginaar affaire yi ginaar yëpp daal lépp luy dem ci ceeb rek man la daal waaw waaw lii du café Touba waaw moom la de waaw kon dañuy segg naan waaw nga ne bitig bi nu mu tuddati waa kër sëñ Massamba waaw Dieng et frère waaw kontaan naa waa Njengeen waaye kontaan naa man dama bëgg kuy góorgóorlu dama bëgg kuy dóor waar ndax yéen tey bu ñuy wër borom scooter yi di këf yéen duñu leen yóbbu bu ñuy wër ñuy dogaale maire yi màggee di kastoor suñu ñoom yaay